la ilaha illa allah la ilaha illa allah fa la ilaha illa allah te soppam yàlla bii ne xam ngeen lu mu wax lu ne xam ngeen ko ko wax xam ngeen ña ko wax nee na jëriñ la def ci toolu Sëriñ Tuubaa bi waaye jëriñ bu mat ñu ngi nii ñu bëggoon nag def lii mu indi bàyyi ko ca magam du baax mu def ko li kilifaam def ko muy sëriñam mu sëriñam Karim Mbacké ñoo ngi ñaan suñu borom yàggal seen dund déwénal leen sëñ Habibullahi la ko liggéey bii nee liggéey bii du am am du am bay te ku jottali nag naa ëppale ak fay nee na seen mbagg seen daam seen daam dañuy am ñebe ah fay ñi ya ci bureau fay koo xam ne mais moo ëpp nag fay fay ñam yi fay kon nag bu leen ma kon nag sëñ sëñ mbagg sëñ lay mbagg sëñ Abdoulaye mi ne mu bu ne du am bayu ku jëf waaye dana am payu. waaye dana am payu. ku jottali jëf. mais des na fay jëf. ëpp la leen yow. mais moo ko dal moom ñu. su yeboo nga nangu rek. mais magam bi baax ji. di Cheikh Abdou baax ñëpp. mais ñu ne rakam bi baax ji nga xam ne. kon astixaar bu ne man nga ne ku sopp ci am bu Mbàkke sëñ Habib bu Mbàkke baaxoo fa yàlla mais loolu ku mu neex wax ko waaye nee ñu baax ñëpp sopp nañ la Mbàkke mais sopp nañ ki la yónni ndax fa ngeen sosoo yéen mooy ki nga xam ne mooy ngëneel suñu borom di fa dugg léegi mais loolu lu ci bàyyi ko lu ne yaay gënal yàlla lu ne neel sa mag yu baax ja jaaw aju te di joojee di Cheikh Abdou Karim Mbacké muy Cheikh Mouhamadou Fadal nee ko njabootu Cheikh Rafal gépp nee nañu la nga bëgg yàlla na ko am yow it Mbacké li nga bëgg yàlla na ko am nee li ngeen bëgg yéen ñëpp yàlla na ko am nee li ñu bëgg mu nekk yàlla na ko am nee lu ne murid yi bëgg yàlla na ko am nee jëf yii mu ne xaj na sëriñ bi nee na moom it làmb ñu jàmm rek la yor waaye li ko dal mais moo dal gis kanamam moo dal kàcce kanamam kanamam. bul mu xëy am xëyam. ci tool bi ci tool bi. nga seen ko mu bayee mbayeefam bu yaatu ak mbayeefam bu rafet mbooloo ma wër ko nga jottali dara la ci tool bi lu dul jëwriñ jëpp la mais kenn rek moom tool ab tool nag mbàkke mais jëruloo jëru la wut jëruñ jiw rëy fexeel ba am jëwriñ rek fexeel ba am jëwriñ joo mais ñun nag déggoo nañu suñu jëwriñ mais yow it déggoo nga si jëwriñ loolu doy na mais loolu doy na sax li nga bëgg yàlla na ko am li nga bëgg yàlla na ko am li nga bëgg yàlla na ko am li nga bëgg yàlla na ko am li nga bëgg yàlla na ko am li nga bëgg yàlla na ko am yàlla na yàgg liggéey sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulah mais di di jur gi ko fi yegg jur gi ko fi yebal. waaw mais doo mën ni sëñ Xaadim. mais ay doo mën ni toog. sëñ Xaadim ak kii di ko woo. ak sëñ Modou Mbacke moom si ñoom sama sëñ Fall. ak sëñ Fall bi. waaw am na leneen Fall. Fall bu baax. est-ce que ak dem ak sëñ Kërim ñëpp rek. ndax loolu am tabaale bi noonu. mais di sant suñu bopp Baye Fall yi. nee na nag ndax lu nekk da ngay jaar ci biir mais Cheikh Abdou Karim moo yabal ñu jaar fii. mais dimbali si liggéey bi. mu liggéey si. ah ñu daan solo. ñu toog mais lépp. ñu koy def ci kuru kilifa. mais loolu sunu maam ko jàngale si. non non non non non non non non non non non non non non non ñeemeen dara ak ñeent. waaw. mais moo ko barkeeloo mais soxna Cheikh Abdou Karim yàlla ko